ami internaute Sénégal 7 euh, TV Sénégal 7 point com dal leen ak jàmm tey nag ñu am mbégte ñëw fii ci Marie euh, fekk si koo xam ni euh, kenn du ko naatal ci Sénégal mu di suñu père Gaston Mbengue papa ñoo ngi lay nuyu di la dalal jërëjëf maa ngi leen di fay di leen nuyu di leen dalal di nuyu seen internaute yëpp di nuyu aussi sama sama goro Pape Ngagne leen dalal dal maa ngi leen di dégg. jërëjëf euh, papa tey ñu ñëwoon seet si la nar a waxtaanee actualité actualité làmb sport en général waaye itam laalaal tuuti ci politique ndax kenn mën la tudd te tudd ñu joolu euh, tey nag bala ñuy commencé euh, ci sujet bi ñu jëm démb Lion Sénégal yi la bande à Sadio Mané daal nañuy qualifié ci coupe du monde bi nga xam ne moom la ñu dëgmal fële ca Qatar doon janoo ak ki nga xam ni moo di tuni Égypte gannaaw ba ñu daanoo fële ca Caire tey nag ñu confirmé ci stade Abdoulaye Wade ban commentaire ngay def ci match boobu. jërëjëf d'abord di leen féliciter kontaan lool réew mi yëpp kontaan ragal naa ni li nu vivre démb moom la nit ku baax ku nekk di ñaan yàlla di ko vivre sa giirug dund mooy jàmm salaam mbégte réew mi ñëpp ànd nekk benn ma daa ma ko jafe na mais suñ ko wutee rek am ko parce que lion yi li nu indil démb Euh, dañu contribuer ci bànneexu réew mi di woote juboo ci réew mi di woote yéenante jàmm ci réew mi ñëpp lañ ko defal defe naa ni mbégte mi ñu am diggante ñaari weer yii ndax futbal bii ku mu doyul dara doo doy ku ci xamul àddina dootoo ko xam kon bu yeboo rek ni ma koy waxee ñu gëm yàlla ci bëggante ndax ñun ñëpp ay sénégalais sunu doom yi ñooy ànd bëggante sëy ca duñ ci mën dara kon ñun nañuy teel a bëggante bala loolu bi agsi lions yi daal ñu ngi leen di félicité di ñaan yàlla nag ñëpp préparé ko ñi mën a toog di ñaan nan ñaan ñi mën a toog di wax jàmm nan wax jàmm ñi mën a dem Qatar nan ko préparé comme ni ko le chef de l'État le président Macky Sall que je félicite au passage ci ndam lii parce que ndam li ndamu Sénégal yëpp la mais particulièrement nag moom la yàlla teg ci bopp réew mi moom la ci il a tous les moyens pour ñu mën a activer waaw. alors euh, victoire di féliciter aussi le ministre de sport. Mm-hmm. qui n'a ménagé aucun effort Matar Ba. Mm-hmm. Mm-hmm. vraiment jig nañu jig na réew mi rëccuwuñu li tax le président euh, Macky Sall teg ko fi. parce que tombé naag lu bëri it tombé naag ay réalisation tombé naag victoire yi tombé naag. coupe d'Afrique surtout le stade. waaw le stade le stade. flambant neuf flambant neuf. ak sat lay Ablaye mu mérité tur wi lool. mu wuyoo mu wuyoo wi lool aussi. heureusement que it ñu jëkkee ci ndam. parce que xam nga réew mi dañoo nekk réew moo xam ne tey su leneen amoon lu ne da nga ko ci dégg. mais yàlla suturaal nañu ba lu baax rek am ndam moo am Ablaye Wade nitu ndam la le président Macky Sall nitu ndam la Sénégal di dëkku ndam. Sénégal di dëkku ndam waaye am na ñoo xam ni victoire Sénégal bi daa mel ni safu leen mu di égyptien fédération égyptienne de football bi moom daal dinay porter plainte mhm. euh, FIFA ci Sénégal nee na dañ leen doon am ay cri raciste ak des jeux de de de de projectiles waaw xanaa son seen bopp loon war a jëkk porter plainte <laughs> ak laser yi ak laser yi ñoom ñun ko jëkk a def fële mhm. ci ah, ca CAF ak FIFA ak yooyu yëpp mhm. dañuy gis xam nga ni naar yi moom ku ne xam nañu seen jikko dañ leen fay bor ku fay bor nag nga la nga leble woon dafa dafa rafetul mm-hmm. mais ñoom ñun lu ñu dajul Égypte mm-hmm. lu ñu dajul ñun dugg nañ fi ci ay stade Maroc dem nañ fi ci ay dëkk yoo xam ne ay xaj la ñu génne woon entraînement joueurs yi ay eh. xaj man fekke naa ci benn fële au Maroc ay xaj la ñuy génne di tiital nit ñi di leen impressionné te FIFA topp leen ci dara te topp leen ci dara FIFA lu mu lay toppee xanaa alamaan la mm-hmm. te pour la forme peut ka yenn yi c'est visible ñu alamaan la pour la forme mais li nu gis démb ci bi gisoon nañ ko fële ca égyptiens yi gënoon a gënoon moo ñoo gën a bon ñëpp. même Sadio Mané aussi dañ ko hmm? lu ñu ko ñoom daal li nu leble rek la leen fay ñun fayu nu leen sax xam nga Sénégal dëkku teraanga la. Hmm. même suñu bëggee teg teraanga yi ci suuf sax. Hmm. léeg-léeg it il faut rek euh, ñu jéem mosle tuuti dañ leen a ñamal rek defuñu leen dara. defuñu leen dara dañ leen a compal. <laughs> defuñu leen dara dañ leen a compal. loolee di mm-hmm. kàddu yi suñu papa Gaston Mbengue waaye nag kenn du la dëgg Sénégal te waxul làmb. Mm-hmm. nga tëgg fi loo xam ni daanaka mën nañu wax ni. Mm-hmm. grand combat yëpp euh, bokk na ci ñi nga xam ne yaay tëgg yi gën a yi gën a gën a garaaw. Euh, dimanche passé muy deuxième journée. ci euh, saison bi nga xam ni moom la ñu nekk nga daal tëgg ki nga xam ni moo di Eumeu seen ak ki nga xam ni moo di B52 di Bombardier tey combat boobu boo doon def bilan lan lay doon tey. Euh, kontaan d'abord parce que man Gaston 2000 du moins 92 euh, ba léegi maa ngi ci di tëb di daanu di daj lu ne mais ma koy assumer parce que man nitu défi la et qui rien n'a rien. il faut savoir oser. dans la vie il faut savoir oser savoir assumer aussi man damay assumer. lépp ma dal ci làmb làmb dama ci nekk muy nattu bu ma yàlla teg mais ma ciy sant yàlla aussi parce que pour lu bégal sama waa réew la ci ragal naa ni au delà de réew mi sax àddina bépp a ciy bég muy ñi nekk ci diaspora beeg ñi dëkkul Sénégal ak ñi xamul tey làmb ñëpp xam nañu ko loolu rek man doy na ma bénéfice mbégte mi may euh, procuré ci xolu nit ñi ëpp na sax bénéfice amul amul prix c'est nag Sénégal tout le temps day mel ni sax bokkunu dara les gens sont mauvais léeg-léeg day am dangay ngay dégg ay réactions yoo xam ni da ngay waaru sax ci nit ñi suul ndaanaan la nu man suñu sayoon nit ñi lu bon rek la ñuy am lu bon rek la ñuy def ca kat lu bon li ñuy yéene nit ki ci la ñuy bànneexu ci la ñuy bëgg ci la ñuy gagné sax xaalis ci la ñuy liggéey ci la ñuy lekk ci la ñuy def lu ne ba pare ci yéenewunu kii produit loolu jàmm loolu foo ko mos yoon xam nga mais loolu moo xaw Sénégal dañuy dund ci sa ci sa ci sa ci sa yëf di dund ci sa ñaq suñu sayoon nga dee suñu sayoon tey bi rek dal la mais tamit critique yi mënul ñàkk waaw mais man nitu critique la mais critique day sensé critique xam nga yàq ak critique lu benn critique day defar yàq nag day yàq ndax jàppoon ñoom dañoo bëggoon defar rek moo tax ñuy wax yenn wax yi danoo bon danoo soxor bon iñaan et puis li gën a bon ci àddina mooy bëgg a nekk donneur de leçon ci dafa bari nag ci seen incorporation bi du ci làmb rek de bari na ci mais làmb da cee yéesle ci nit ñoo xam ne kenn xam kenn waru leen woon a xam sax. mais làmb rek dafa baaxoo coow. waaw dafa baaxoo coow mais baaxoo coow aussi da nga ciy respectueux da nga ciy boole respect nit ñi da leen di respecté. loolu je suis d'accord waaw nit ki soo ko respecté wul bëgg a wékku parce que am yàlla kii na la rek ngay wax di wax ba nu jox la micro yow sa diplôme yëpp micro la du leneen nga bëgg cee profité su la neexee yekk lu la neex chef d'état su la neexee yekk lu la neex ministre su la neexee yekk lu la nekk nekk di di comporté wu en donneur de leçon ci yow leçon yi ngay joxe mokkaloo ci benn soo bëggee dégg-dëgg sax ay prostitué lañu waaw prostituée xam nga prostituée mooy lan. mooy kuy koo xam ni noo mën a def ba xaalis rek nga am ko. ci biir ci biir politique bi sax dañuy wër parti yi pour di prostitué wu su tey yaa ngi ci Abibou Soumaré soo liggéey yaa ngi ci Idriss Seck soo liggéey yaa ngi ci Macky Sall da ngay wëndeelu rek. mais ñooñu ay journaliste lañ wala. du am mais duñu journaliste jàngunu cest à bëgg a jaa dañu bëgg a jaawale communicateur traditionnel ak journaliste te communicateur traditionnel xam nga seen référence kan la El Hadji Mansour ñoom ñëpp ku ko ci def ah, référence la koo ko ci def référence réussir am na ci gone yu ko def référence daa ñëw ci moom sax ndax am na ci gone yu ko def référence ci communicateurs yi mais nag bu ñu dem ba defe nii euh, ils doivent se permettre de tout man du ma nangu loolu kenn xam nga du ma politicien mhm. danaa wax waxi politique mhm. euh, du ma wutuma place wutuma intérêt ci dara moi je me suis fait tout seul modeste à part dama ñefe dama jóge Louga di ñefe mhm. du ma nangu kenn ku jéem a xajamal sama liggéey ku ko def danga ma fekk ci ci sa yoon. mais gis nañ sax euh, ku ci mel ne suñu papa Bécaye Mbaye ñu koy nuyu de passage. moo tax sax doo ma ko tuddal non mais xam nga ah. wax ji mu wax. je pense que ni pour defar moo tax xam nga. non non ay mag ngeen ay kilifa ngeen sañ nga wax peut-être pour defar. non xam nga xam naa ni sax loolu mais xam nga bugguma mm-hmm. ñu entraîner leen ci. Mm-hmm. yoonu naafeq. non jamais. voilà bu leen ko nangu. Mm-hmm. bugguma ku lay entraîner ci yoonu naafeq. ñoom seen émission boobu ñuy waxuma l'œil du tigre la xoba ci làmb ji la ñuy dund moomuñu production ñun ñoo moom suñuy production ñu koy profité di ko teg ba pare di ci wuti sponsor kon waruñoo ji waruñoo jéem a yàqal dara mais est-ce que pour defar moo tax mu wax loolu euh, kàddu yooyu euh, euh, pour defar yàq yi pour defar ban defar yow yow nit ki moom làmb la ku bëgg làmb la ko yàq non non pardon mhm. ku ku moom yëfam nee télévision yi lan la pour quelle raison loolu leen promoteurs yi jariñ jariñu leen dara li tax ñu ne xëccoo man je suis demandeur de d'aucune télévision. ah amul benn partenariat boo. non dama ni. Mhm. du ma demandeur. ah d'accord. partenariat bi baax na lool mais ci kaw respect. Mhm. ci kaw respect. football baa ngi nii démb da ngaa gis benn caméra ci biir stade euh, Sénégal Égypte. dañ ko réglementé FIFA moo réglementé loolu. mais man dama réglementé sama yëf. mais est-ce que mais pour quelle raison ngeen bëgg a nangul tubaab bi réglementé ñun ñi moom ah, ah, ko baax a baax. voilà kon boog <laughs> ñun tey ma moom sama yëf dépensé ci sama xaalis des centaines de millions. Mhm. réglementé sama yëf ñu ñuy wax ni way euh, télévision yi waruñoo def loolu ñooy ñooy def promotion mais ñoo def promotion li ngeen def yéen yéen rek si mhm. li ngeen def promotion ci marché bi kenn def ko RTS waaw daf leen a war. c'est une équipe non waru leen war ba pare da ngeen ciy gagné. alors da ngeen ciy gagné defu leen ko gratuitement. non non ñoom ñu ngi koy def ci football bi def nañu ko ci Sénégal Égypte bi. Mhm. te kenn bàyyiwu leen ñu dugg fa. Mhm. diffusé wuñ ko. Mhm. li tax dénoncé wuñu loolu di dénoncé làmb joo xam ne c'est privé Gaston Production moom moom làmb. di ko di dénoncé loolu. nee na nee na waa télévision mi ngi da leen di demandé ñu arrêté loolu nan arrêté je suis prêt ñu arrêté tey ñoom. Bantamba. 2STV mhm. moo ko moom. leer na Bantamba TV. moom moo ko moom bu mu duggati sama làmp. ëpp naa def ëpp naa def. yow xam moom ma sax barke Serigne Bamba laa wax. ëpp naa def. ëpp la ay amateur làmb. man la ñoo ngi suivre Bantamba. dama ni ñoo ngi ñoo aussi. dama ni. Mhm. ku may yéene musiba nga dem ak musiba bi. ma j'ai pas froid aux yeux. ku bëgg a yàq sama yëf kuy saboter sama yëf et li le malheur. cinq minutes avant muy def xaw ma quelle mouche la piqué cinq minutes avant muy def déclaration bi daf ma woo ñu wax waxtaan ba ma wax moom ni ko man dama ci ñëg yi mënuma la may lii bàyyi lii il faut ma respecter télévision yëpp li ñu respecté na ngeen koy respecté TFM en gentleman bi nu demee ba commencé teg làmb ji bi ma wooyee Malick Thiandoum jotuma ko dama woo DG ba Birame Ndour il a reconnu xam na ni li nu signé xam na ko moom moo taal otoom dem ba studio ni gars yi génne leen lii parce que lii si wuñ ko il faut respecter les gens Malick Thiandoum grand daal di excusé wu jël lépp arrêté ko pare excusé wu excusé Gaston Production mais taxaw mel ni yow yaa moom yëfu jaamur mel ni yaa moom réew mi su la neexee nga yekk lu ne réew mi su la nga yekk lu ne Macky Sall su la neexee nga yekk lu ne Gaston su la ne lu ñuy waxtaanee di ko ngurnguree ci seen biir kër yi dañuy jël plateau télévision jaamur pour di ci profito pour ŋàññ nit ñi nit day service nit day man nëbbuma dara sàccuma fenuma duma góor jigéen defuma drogue dunduma ci ñaqu kenn kon duma nangu kenn di ma jéem a déstabiliser ku ko bëgg a def dajeeg man alors euh, man xam naa ni commentaire ma ci def rek mooy comme que ni ma la xamee nitu jàmm nga père Bécaye aussi nitu jàmm la xam naa ni. Euh, ñàkk compréhension rek moo ci am doo wax sax di comparer parce que comparaison n'est ay nitu jàmm ngeen ay jàmm ngeen yéen mais mais comparé non non du euh, comparaison non déglu ma rek c'est juste pour man euh, fu mu mm-hmm. fu mu waxee ma wax. Mm-hmm. mais yéen yéen ñaar ñëpp seeni kilifa ngeen te ay borom jàmm ngeen. bon ñu jógee ci man <laughs> non non papa yow xam nañ la jàmm nga. <laughs> alors euh, tonton ñu yam ba ci ba ñu egg ba ci léegi ñu continuer ci combat bi nga xam ni moom la ñu. weesu et puis mm-hmm. li ñuy def dañu def ni ñoom ay star la star mais diaspora bi ci seen bopp ñoo jëkk a décrier sax. seen façon reportage parce que di woyaan ci te toog ci plateau lu nekk ñu koy wax di nangam waxatuñu sax waxi làmb diaspora bi dañu bëgg ku leen wax làmb dañ koy nangu parce que ñoo toog seen plateau kenn mënu leen a ñuy wax lu leen neex mais li ñuy def woyaan tagg nit woy nit yuuxu nit mbaab dóor ngàdd yoyu yooyu yoyu yooyu yooyu yooyu yooyu dépassé nañ ko fii kenn mënut la nax kenn kenn mënut la nax kenn liggéey na sérieux man sama làmb kenn du ko yàq. papa ñu wax ci làmb. papa keroog euh, làmb ji stade bi dafa mel ni dafa xawtoon a fees de ndax ndax amul amul ay perte yu ñu mën a. non jàpp ne am na